Euh, am mbégte trop teew fii ki nga xam ne moo jiite tey euh, yoonu Tidiane yaa di sëñ Babacar si dalal ñu fi euh, yaatal ñu koy nuyu di jaarale suñu nuyoo jaarale ci moom suñu nuyoo ci njabootu alaaj Malick yëpp amul ku ñu bàyyi waaye jaarale ko ci kilifa diine Sénégal yëpp ak julitu Sénégal yëpp ci li nga xam ne moom la ñu bokk muy maggal ki nga xam ne mooy ki yàlla yónni woon ci ñun di ko ñaanal moom xalif général de Tidiane yàlla yokk ko wér gu yaram may taxawee diine gi yàlla may ko mu wéyale ko nu mu gën a yàggee. Euh, dalal nañu it euh, gannaaw bu ñu jaaree ci sëñ Abdou nga xam ne ñëpp xam nañ sama digganteek moom di sama baay di sama kilifa di sama sëriñ ñëw nañu fii mu dalal ñu. ñu waxtaan nag waxtaan nañu ci bës bi ndax looloo ñu andi bësu diine la wala ci sax jamono ji ndax màggal euh, euh, gàmm gi dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy fan yi ñu toll nga xam ne ni ñu ciy def burdu bi di ay ñaan ñuy jagleel réew mi waaye waxtaan nañu it ci bës bi ñu jëm dëgmal kon waxtaan nañu ci diine waxtaan nañu it fàttali naa ko suma digganteeg yoon bi mu yoon Tijaaniya waaye sama diggante it ak kër gi bi ma ñëwee daaw waxoon naa ko ko yàlla daf maa may ci sama wàllu waajur bu jigéen may sët ci alaaji rawan ngom ñëpp xam nañu lan moo woon diggante alaaji Rawane Ngom ak alaaji Malick Sy ba ñoom ñaar ñoo njëkk a taxawal gàmmu ci premier édition bi ci jamono ay 1900 relation yi fàttewaat nañ ko ko ñu rafetlu ko ñun ñaar ñëpp parce que luy euh, établir li la suñu diggante gannaaw gi waxtaan nañu tuuti ci li nga xam ne euh, en tout cas man waxtaan naa ci li nga xam ne sama cër la ci réew mi ci wàllu may yëngatu muy wàllu politique fàttali rek yenn fondamentaux yi nga xam ne mooy taxawaayu suñu parti ñun mooy weesuwul ni bëgg réew mi gëm ni réew mi lu ñu mën a defar la ci nu gën a yombee teg ko it ci suñu idéologie ak suñu gis-gis muy patriotisme di défendre suñuy principe ci fulla ak fayda waaye lépp nag ñu ànd ci ak tey ak dal ndax bëri na ñoo xam ne suñu buggee jaxase xelu sénégalais yi dañ naan ñii dañoo ñëw pour yee fitna waaye kenn mësuñoo gis ñu saaga kenn mësuñoo gis ñu woo nit ñi à révolution wala yu mel noonu waaye nag am réew ñëpp mënuñoo bokk ànd li ma wax léegi kilifa gi nee na ko yàlla nee naa ko yàlla ci boppam bu ko neexoon ñun ñëpp dañuy nekk benn xeet nekk benn euh, ethnie nekk benn diine nekk benn tarixa suuf si sax benn continent rek lay waaye moom la soob mu def ñu ñuy ay pàcc mu ne inna jaalnaakum shuuban wa qabaila foofu la jeexalee wax ji ñii weex ñii ñuul ñii gàtt ñi njool ñii di joolaa ñii di séeréer ñii di manka ñii di julit ñii di catholique ñii ne animiste lañu kon unanimité mënul am moo tax ñu andi démocratie kenn ku ne li nga gëm nga mun ko exprimer ci tey ak ci dal ak ci jàmm ñu fàttali taxawaay boobu it parce que baax na su ñëwee ci occasion yi mel ñu leeral ko bi ñu baree nag sëñ bi moom wax dëgg yàlla euh, wax na wax yu rafet ci li ma njëkk a wax ci bés bi waaye ci li nga xam ne mooy suñu diggante ci wàllu deret yi nga xam ne suñuy maamaat wala suñuy maam ñoo ko seqoon daa di nag daaneel ci ay ndénkaane ndénkaane yi nag ñëpp xam nañu ndénkaane suñu kilifa diine lan la te loolu mooy seen cër ci réew mi kilifa diine yi waxuñu ne lañ leen dem leen gere suñu armee wala dem leen gérer suñu administration wala suñu diplomatie waaye ñoom la ñu dénk lépp li nga xam ne dafa jëm ci liy defar nit ñi ci jikko ak ci comportement ak li war a dalal réew mi liy tubaab bi wax stabilité loolu ñoom du ñu dañ ci di ko rappeler nit ñi amul kilifa diine goo xam ne wax naa sànq ni ren foofa ngeen dégg ngeen discours bi fa kilifa ga wax Touba gis ngeen dégg di discours bi fa kilifa wax fii it loolu lañ fi wax su ma demee Njaasaan loolu lañ may wax su ma demee Medina Baye loolu lañ may wax su ma demee feneen ak feneen loolu la ñuy wax parce que loolu mooy cëru suñu kilifa yi muy lu ñuy rafetlu nag di ko déglu am ci mbégte bu baax parce que toujours dama wax ni Sénégal suñu matière première bi nga am am solo du or du zircon du pétrole du leneen ndax toog nañu ba jamono ji amuñu woon loolu te li xew réew Afrique yu bëri amu fi du coup d'état du guerre du guerre civile. kon su dee lii lañu am ñun da dañoo war a góorgóorlu di ko sàmm teewul nag kenn ku nekk li nga jàpp ni mooy sa dëgg nga mun ko di ko wax ak di ko jëfe kon loolu moo ne woon waxtaan bi ñu ciy gërëm sëriñ bi bu baax a baax a baax di rey réitéré li ñu wax mooy di ñaan yàlla mu may ko fan yu gudd a gudd gudd may ko wér gu ci yoon wi ak ci diine gi yàlla na ko yàlla jàppale mu jëmale ko fu kaw a kaw a kaw loolu daal lañ ci mënoon wax ci tënk ñu ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf